gis ngeen Malick Gakou mu ngi noonu gis ngeen président Malick Gakou moo nekk moom jàpp nañu président Malick Gakou jàpp nañu président Malick Gakou jàpp nañu Malick Gakou jàpp nañu président Malick Gakou Déthié Fall mu ngi noonu nekk mandataire national coalition Yewwi Askan Wi moo taxaw noonu ñu ñu ni ah, jàpp nañu Déthié Fall ak Malick Gakou. ñu ngi bëtam bëtamee ki nga jàpp nañu Barthélémy Ousmane Sonko jàpp nañu tamit Ousmane Sonko jàpp nañu Ousmane Sonko mu ngi noonu waaye Sonko moom la ñu dugal noonu. boo xoolee boo xoolee boo xoolee boo xoolee xoolee Malick Gakou xoolee Malick Gakou mbokk yi gis ngeen li nga xamante ni mooy Khalifa Sall Ousmane Sonko tamit jàpp nañ ko Déthié Fall jàpp nañ ko fi ñu wala fii nga xamante ni ko la dal donc si buntu ko la